ci pays yi nga xamante ne ñoom ñoo ñu wër. Mhm. Euh, démb mu nekk Côte d'Ivoire mu war a dem Bénin. Mhm. Euh, la moo war a nekk taxawaay à ton avis. Mhm. Euh, président ba Bassirou Diomaye Faye si dëkk yi nga xamante ne ay partenaires lañu. alo dans un premier temps ça c'est ça parce que un président de la République qui fait ses premières sorties avec dans ses pays voisins ça c'est très normal et nous en tant que panafricanistes moi je suis preneur pour ça quoi d'abord dans un premier temps qu'est-ce qu'il doit faire et qu'est-ce qu'il est en de faire c'est d'abord de privilégier les intérêts de notre pays le Sénégal je pense que partenariat bu munta doon que ça soit euh, la Côte d'Ivoire que ça soit dans n'importe quel pays de l'Afrique ou la France et ou n'importe quel pays je pense que ce qu'il est en train de faire c'est d'abord de de de de mettre en avant le Sénégal avant tout et le partenariat bu munta doon c'est un partenariat que que du nekk partenariat boo xamante ne Sénégal sera laissé en rade parce que loolu dafa bokk suñu projet mu également sur les démarches bu nga xamante ne président Bassirou Diomaye mu ngi koy def mais aussi également suñu ay convictions. même les pays de l'AES aussi. bien sûr nous on attend chaque fois que les intérêts des Sénégalais tant que ñu ngi gis intérêt Sénégal dans le bon sens je dis bien euh, nous sommes preneurs.